أعوذ بالله من الشيطان ñu ñëw ci xadis bi nga ne xadis la bu wér jógee ci ngën di mbindeef yonent bi sallallahu alayhi wa ala wa sahbihi wa sallam muy xadis boo xam ne ñëw na ci ay baat ak ay yoon yu limu la ñuy tegtale mooy dëkk bii di almadinatul munawwara dëkku yonante bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla wattu na ko ba taaxuun du fa dugg comme ni mu ko wattoo ci almasiixu dajjal ba du fa dugg am ci xadis yi yu ci boole màkka almukarrama moom it yàlla wattu ko ci taaxuun wattu ko ci dajjal mu mel ni am na ñu am ak lënt wala ak jaaxle am ñeneen ñuy weddi ne xadis yi wéruñu ngir mbas mi di coronavirus dugg na Makka ak Madina te yonante bi sallallahu alayhi wa li jullit ñëpp xam te gëm ko mooy lépp lu mu wax rek waxi borom bi subhanahu wa la ay waxam dara dara du ko dindi jamono du yàgg ba weddi ay waxam moom yonantu sallallahu alayhi wa sallam kon lu xew lu xew mooy dafa am ñu juum baat yi ñëw ci xadis bi ñu firee ko nu bokkul ak nam war a firee loolu moo tax ñu jàpp ne kon sagam mbas mi dugg na Madina wala dugg na Màkka xadis yi mënta wér loolu nag ci lañ bëgg a indi ay leeral xadis bi ñu teg nag muy xadisu sayidina abi hurayra radiallahu anhu dafa wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ala anqaabil madinati malaikatun la yadxuluha taaun wala dajjal sayyiduna abu hurayra radiallahu anhu nee na bi sallallahu alayhi wa moo wax ne mboolem jaaruwaay yi ñu gaar di dem madina mboolem yoon yi jëm madina ak lu yoon xat-xat ay malaayika fa di garder dëkk bi ba taaxun du fa dugg maseex dajjal du fa dugg euh, beneen xadis xadisu sayidina anas ibnu malik radiallahu anhu moom it mu jëlee ci yonente bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yonente bi ne almadinatu yatiha dajjal fa yajidu almalaikata yaxrusuunaha fala yaqrabuha dajjal qaal wala taaun insha allah ne na dajjaal jamono ya muy feeñ dana ñëwal madina waaye day fekk ay malaayika di ko garde moo tax du ko jege naka noonu taaun du dugg madina du ko jege insha allah ñu doyloo ñaari xadis yi nga xam ne ñëw nañ ci saxiixayn waaye xadis bii niñ ko waxee woon ñëw na ci ay yoon ak ay baat yu limu yenn ya boole ca màkkatu al mukarrama mu mel ni nag pour ñu xam baatu taaxun taaxun ci làmmiñ wolof dañ koy firee mbas ndax ñu xam nag baat bi mooy lan lan lay firi ba tey dañuy dellu ci xadiisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi moo firil boppam taaxun saxaaba yi ridwanullahi alayhim yàlla na yàlla fay leen dafa bokk ci seen liggéey bu rëy bu ñu liggéeyal xeet wi lu yonentu mas a wax mu jaaxal leen rek danañ ko laaj loolu mooy lan moo tax am na fu mu waxee wax ji ñu laaj ko ne waaw taaun de xam nañ maanaam euh, booba dafa njëkk a tudd taanu taanu xam nañ ko waaye lan mooy taaun mu firil ko boppam sallallahu alayhi wa lan mooy taaun ngir ñu xam lan mooy taaun mën a ràññee coronavirus bii feeñ tasaaroo ci àdduna ba dugg ci alxaramayn sharifayn ndax taaun la wala du taaun balaa ñuy déglu firim benn boroom xam-xam wala waxi kenn kuy wax nañu dellu ci yonante bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam mu firil ñu lan mooy taaun ci musnadul imam ahmad ibnu hanbal radiallahu anhu xadis a ngi nii sayidatna aïcha radiallahu anha mooy nettali nee na yonante bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne laa tafna ummati illa bittauni wa taaun qultu ya rasul allah hada taaunu qad arafnaa fama taaun qaal xuddatun ka xuddati albair almuqimu biha kashahid walfarru minha kalfarri min azaf sayidatna Aïcha nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na sama xeet daal duñ jeex lu dul ci ñaar maanaam liy jël seen bakkan la leen di rey la leen di jeexal ñaari mbir la benn bi mooy xare jamante ak taxnu mooy jam xeej ak paakaak jaaseeg ba ci fetal ak yooyu yëpp nga xam ne dañuy dugg ci yaramu doomu aadama gaañ ko tuur deretam loolu mooy taanu ñaareel bi mooy taawun lii la yonent wax sayyidatna Aïcha nee na ma laaj ko ne ko yaa rasulallah taanu muy xareeg jam moom de xam nañ ko waaye taawun moom mooy lan yonent bi tontu ne ma xuddatun ka xuddatil ba'iir taawun ay bu la neexee firee ko ay néewi néewi wala ay taab wala ay picc wala ay parabole xeetu néewi néewi yi nekk ci yaramu doomu aadama euh, am ay tur yu wuute ci làmmiñu wolof bu ci ne ak nam tudd loolu mooy wodda danañ ñëw ci baat bi ci maajimu lugatil arabia nan lañ koy firee waaye daal yonent bi moo ko firil boppam taaxun mooy lan taaxun day doon lu mel ni ay ay taab wala ay picc comme gileem gu ràmm gileem gi ràmm nga xam ne yaram bi foo xool rek gis ab góom mu mel ni lu néewi loolu mooy taaxun ne fu mu xew nag ku fa toog muñ atteb ko shahid nga yor waaye ku koy jéem a daw nag yaa ngi mel ni ku daw ci xare xadis bi nii la ñëwee ci musnad imam ahmad ahmad ibn hanbal waaye ñëwaat ci beneen baat moom it sayidatna aïcha radiallahu anha wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na fanaau ummati bi taani wa taaun lii jeexal sama xeet mooy a taanu wa taaun sayidatna aïcha ne ma ne ko waaw yonente bi hada taanu qad arafnaa taanu xam nañ ko waaye lan mooy taaun mu ne ma xuddatun ka xuddati l ibil gis nga baat yi ñooy wute waaye maanaay benn la bair mooy mooy gëlëm comme ibil mooy gëlëm afala yanzuruna ilal ibil gëlëm wa nazaadu kayla bair bair mooy gëlëm yëpp ci luga alquran xuddatun euh, ka xuddatil ibil almuqimu fiha kashahid walfaaru minha kalfaari min azzax képp ku fa sax am nga tiya tiyaabo yi ku shahid waaye ku fa dawit yaa ngi mel ni ku daw ci xare foofu liñ fiy jàngee mooy taaxoon bu ko yàlla nattoo xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku dul jullit de mën naa musiba la ci yow waaye yow jullit bi nekk ci la nga war a nekk yërmande la ci yow loolu ay xadis yu bari tegtale na ko moo tax fu mu xew ku fa toog muñ mu fekk la ci suuf nga bañ a daw di génn ni ko yonent bi digle woon bu ca sa bakkan defee àtteeb ku shahid nga waaye même bu ca sa bakkan desul toog nga toogoon di muñ rek da ngay yor yoolu ku shahid kon lu am solo la waaye nag képp ku koy daw ngir euh, ragal ko yaa ngi mel ni kuy daw ci xare kon mbokk yi lan mooy taaun yonent bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama moo ko firi ci làmmiñam ne xuddatun ka xuddatil ibili xuddatun ka xuddatil bairi xudda mooy lan ñu dellu ci maajimu luxati al arabiya al mujamu fekk mu firee baat bi nii xudda jamco bi war a doon xudaadun wala xadaidu muy ñaari jamco taksir bii di siixatu muntaxal jumoox moo tax mu bañ koo tanwin dañuy wax ne barazat xuddatun fi faxidi xudda feeñ na ci ab luppam luy xudda qitaatun min laxmin day mel ni dogitu ndawal salbatun bu dëgër tabruzu ma baynal jildi wal laxmi ala ishri daa in ma day feeñ ci diggante deru yaram wi ak ndawal gi maanaam nit ki fi deru yaramam yem ak la ca gannaaw der ba muy yàpp wa diggante boobu mooy am néewi néewi bu feeñ mel ni foo xam ne dañ fa jamoon dara ba génnee mu mu mu néewi moo tax baatu taaxun baatu taaxun rek daanaka dafa firi woon boppam ci ku xam lu arabiya ndax baat bi faaxun la ci taaxunu taaxunu gii nga xam ne mooy firi jam-jam moom lañ tëgg faaxuul muy taaxun moo tax jàngoro lay doon joo xam ne faw rek kam dal boo ko xoolee boo xoolee day mel ni koo xam ne luñ kun luñ kun jamoon lu mel ni xeej ba loola néewi néewi néewi yooyu nekk ci ay yaramam ba ba ba ba ba sonal ko faat bakkanam ndax taaxun ñaare dañuy wax ne feebar la boo xam ne faw day day day feeñ ci deru yaramu kim dal gannaaw bu yàqee la muy yàq ci biir yaramam waaye dañuy wax ne it feebar la boo xam ne du def ak nit lu ëpp ñetti fan te jëlul bakkanam du def ak kim dal lu ëpp ñetti fan te jëlul bakkanam boo continuer in continuer moom borom mojam bi di yokk leeral baatu xudda bi ak yeneen maanaa yi mu yor yépp waaye loolu ñu indi ci rek moo ñu ci yitteel ndax moo méngoog lii ñuy wax ci beneen xadis indiwuñ ko waaye am na beneen xadis boo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam firi na fa baatu taaun firee ko waxsun waxsu ba tey moog lii ñuy wax benn la ndax ab jam-jam lay firi boo xam ne ci jinne yi lay bàyyi ko léegi nag bu ñu xamee mbas mii di wiris ak li ci docteur yi di leeral virus buy dugg ci biir nit di ko yàqal ak nooyi sonal ko ba jël bakkanam ndax niroo na dara dara ak lii yonente bi sallallahu alayhi wa sallam firee baatu taaun muy xuddatun ka xuddatil ibil wala ka xuddatil bair xudda xam nañ ko ci luxa arabiya li ñuy teg ndax niroo nañ déedéet dangay fekk ne jotewuñu dara niroowuñu dara euh, mu am nag lu ñuy tuddee wabaa ci làmmiñu wolof wabaa dañ koy firee mbas comme taaxuun dañ koy firee mbas waaye ñaari baat la yoo xam ne bokkuñu te loolu dana gën a leer ci buñ demee ci téere bu mel ni ab tibbu nabawi ibnu qayyim al jawziya ci ab tibbu nabawi téere baa ngi nii muy xëtum ñeen fukk ak ñaar ba muy jàngalee faslun fi hadyihi sallallahu alayhi wa sallam fi taauni wa ilaajihi wal ixtiraazi minhu njubug yonente bi sallallahu alayhi wa ci taaun ak naka la koy saafara ak naka la koy wattandikoo wala naka lañ koy saafara ak naka lañ koy wattandikoo euh, moom leeral na fa bu baax a baax baatu taaun waaye anam gi ko leeralee it dafa dëppoog lool lii ñu indi fii te jëlee ko ci firim yonent bi mu firil ko boppam waaye jëlee ko ci luxa arabe ci boppam naka la firee baat boobu ibnu qayyim al jawziya ci téeréem bi ab tibbu nabawi bi muy wax ci taaxuun indi xadiisu a taaxuunu rijsun ursila ala taifatin min bani israila wa ala man kaana qablakum fa ida samictum bihi bi ardin fala tadxulu alayh wa ida waqaa bi ardin wa antum biha fala taxruju minha firaran minhu indiwaat xadiisu attaacuunu shahaadatun li kulli muslim dafa leeral nag lan mooy taacuun min xaysu luga mu ne nawun min al wabaa taacuun xeet la ci wabaa qaala saaxibu sixaax sixaax benn marjax la ci luga nee na wa huwa moom taacuun inda ahli tibbi warimun wala waramun radiun xattaal waram mooy néewi néewi gis nga mooy lañ doon wax mooy ay néewi néewi ci yaram yoo xam ne yu bon la waaye yooyu rey nit la yaxruju maahu talahubun shadid mulimun jiddan yatajaawazu almiqdaara fi dalik wa yasiru maa xawlahu fi l aksari aswad aw axdara aw akmat wa yaulu amruhu ila altaqarruxi sarica continué na leeral ci leeral yu am solo indi xadis bi ñu léegi muy xadisu sayyidatna Aïcha xuddatun ka xuddatil bair waaye mu indi ko ci lamp boo xam ne dacaa dolli yaxruju fil maraq wal ibt ma ngay génne ci bar cër yi nga xam ne dafa sew lu mel ni ginnaaw nopp cetu nopp wal ibt ak lu mel ni poqutaan yooyu ci lay néewi néewi yooyu di njëkk feeñee ca ka di dal balaa muy matale aw yaramam yëpp kon euh, gis ngeen biñ delloo ci làmmiñu yonent bi naka la firee baat bi waaye al muhaqiquuna min al ulama te ñu doyloo ci rek ibnu qayim al jawziya ci téeréem bi euh, ni mu baat bi yaakaar naa ne ku ko xam te nii dong la am nga yaqin am nga ilmul yaqin ci ne baatu taaun joteewul ak dara dara virus bi nga xam ne moo lëmbe àdduna ñu di ko tuddee corona ba tey ci ab tibbu nabawi ibnu qayyim al jawziya rahmatullahi alayhi gannaaw bi mu indee baatu taaxuun min xaysu luxa continué na indi baat bi ci li waxi ñi seen xam-xam màcc ci wàllu faj qaala al atibaa waaye ñoom it liñ wax ci baat bi niñ ko xamlee dafa dëppoog lii muy firi ci luxa dëppoog ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama firee woon ca xadisu indi ci ay wax yu xawayaatu ak i wuute waaye bam noppee mu ne war taxqiq lay lay lay dëgg lañuy ñuy dëggal ci mbir mi diggante wabaa ak taaun anna bayna al wabaai wa taauni umuman wa xusuusa baatu wabaa gi ñu firee mbas ci wolof taaun it ñu koy firee mbas ci wolof taxul ñu bokk dara ndax dafa am umumun wa xusuusun bil wacc gu dox seen diggante luy loolu fa kullu taaxunin wabaa wa laysa kullu wabain taaxuna taaxun boo gis rek wabaa la taaxun boo gis taaxun bu mën a doon mën nga koo firee wabaa bu la neexee ndax taaxun benn xeet la ci aw bi ay aw bi a mooy jamu wabaa waaye wa laysa kullu wabain taaxuna te du càggee ne wabaa boo gis rek moom taaxun la kon feebar bii nga xam ne mooy corona lan la wabaa u la bu kenn juum nag am na ko juum dem ca euh, saxiixul buxaari baatu taawun ba mu ko tuddee ci xadis bi mu xaqiq ba di ko firi ne attaawun wabaawun mu bëgg yaakaar ne ndeysaan kon attaawun ak wabaa mutaraadifaani lañ déedéet ndax taawun bu la neexee nga firee ko wabaa ndax benn xeet la jinsu la naw la ci biir wabaa waaye nag du tàgge ne wabaa yëpp yëpp ay taawun lañ kon corona bi wabaa waaye du taaun ba tey ibnu qayim al ci téere bi at-tibbu nabawi nee na wa kadalika al amraadu al aama aammu min al taaun waaw feebar yi nga xam ne day day yaatu tasaaroo matale di wàlle ba tey bokkeewul ak taaun yooyu it ci wolof mbas lañ koy firee bépp feebar bu xew gaaw ci wàlle tey jël bakkan dañ koy firee mbas ci wolof waaye loola euh, tekkiwul ne feebar yooyu yaatu di wàll rek yépp yëpp yëpp ay ay ay ay ay taaxun lañ ay tawaaxin lañ déedéet ndax balaa doon taaxun faw rek lu mel ni ay góom wala lu mel ni ay néwi néwi wala ay picc wala ay taab nga xam ne boo xoolee baat bi delloo ko ci cosaanu loxo bi muy faaxul buñ jëlee ci taxnu day mel ni fuñ jamoon ba noppi lay xew door a xew kon yaakaar naa ne loolu lañ bëggoon a leeral ñu xam ne baatu taaxuun bi yonent bi wax ne du duggu Madina du duggu Makka ku bëgg wax ne corona dugg na Makka dugg na Madina kon wax jooja dañ na wallahi dangaa juum ndax yonent waxul fenn corona du duggu Makka du duggu Madina waxul benn yoon baatu corona taaxuun la wax yow nga firee taaxuun corona ci kaw njuumte balaa ñuy jeexal ñu leeral loo xam ne junjoon nañ ko ci biir wax ji muy baatu taaun ni ko yonante bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam firee muy xuddatun ka xuddatil ibil te al muhaqiquuna min al ulama it noonu lañ ko firee te baat bi aslan wa luxatan loolu lay firi muy góom yooyu wala taab yooyu wala néewi néewi yi picc yi tarabole yi wala caqaar noo ko tuddee rek yooyu muy def ci biti yaram ci kaw yaram noonu loolu mooy ay asaaram mooy ay jeexitam waaye la muy yàq bay rey nit ki def na ko ca biir yaram wa lii nag mooy asaar yi feeñ ci biti nga xam ne moom lañ koy xàmmee kon loolu lu mata bàyyi xel la beneen bi moom lañuy ñuy jeexale xadiisu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi fu taaxun xewe kum fa fekkoon bul génn ngir daw waaye kum fa fekkul woon bul fa dem la tax yonent bi wax loolu dafa am ay àlla àlla yoo xam ne xam nañ ko bokk na ci àlla yi yow mi nekk ci barab bi taaxun xew bul daw génn ndax lan jamono yi ngay bëgg a dem ne dara jotul la mën naa am mbas mi dugg na ci saw yaram foo dem yóbbaale ko fa wàll ko ñooña muy gën di tasaaroo ci àdduna ñu bari di gën a loru loolu bokk na ci àll yi tax mu tere génn gi ngir daw waaye bokk na ci it fu taaxun xew ñam dal ñam dalagut bëgg a jóg daw balaa leer a dal ah kon ñam dal de danañ gën a loru danañu gën a am jafe-jafe ndax ñoom dañuy xaajoo ku leen taxaw ku leen dimbale ku leen jéem a faj ku ci wuy ji boromam ñu war laa sutural Euh, bu fekkee nag ñam dalagu ñëpp génn nañ daw kon loolu ak musiba ak yàqute lay jur loolu bokk na ci àll yi tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam tere génn gi la tax mu ne kum fa fekkul bul fa dem bokk na ca nga fekk sa boppu bañ a tàbbi ci luy lor ndax boo fa demee mën naa mbas ma dal fa ba nga loroo fa loolu nag moo waral beneen feebar bu mu mën a doon comme corona bi doonte du taaxun ak beneen feebar bu mu mën a doon rek bu mën a xew doonte du taaxun waaye day wàlle dafa gaaw ci wàlle te day jël bakkanu doomu aadama képp kum fekk ci barab nga bañ a génn ngir daw kum fa fekkul woon nga bañ faa dem ngir lan doonte lii xew du taaxun de waaye nag xel la ya taxoon ñu tere dem ca barab ba ca ca taaxun ak xel la ya taxoon ñu tere génn ca barab ba ci taaxun xel yëpp dañoo waat fii moo tax corona yeneen mbas yi nga xam ne ñooy xew wala ñoo mas a xew ci àdduna yëpp ya ca doon taaxoon ak ya ca doonul taaxoon yëpp ñoo bokk àtt yooyu maadaama feebar la boo xam ne wàlle ga gaaw na tasaaroo ga gaaw na te day jël bakkan doomu aadama fu mu fi xewee rek ku mu fa fekkul woon daal bañ faa dem mooy ndigalu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku fekkoon bañ génn ngir daw mooy ndigalu yonent bi wa ala alihi wa sahbihi kon alhamdulilahi rabbil alamin loolu rek lañ bëggoon a leeral ngir fàttali suñ bopp li suñuy mbokk ñu bàyyi xel ne lislaam diine la ju ju bàyyeekoo ci borom bi subhanahu wa taala lépp lu wàcc di alquranul karim wala mu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa lu mu ci doon rek waxyu la wu bàyyeekoo fi borom bi subhanahu wa taala daa fekk nag ne dafa am ci nit ñi ñoo xam ne lu ñu xamul rek dañ koy weddi bal kaddabu bi ma lam yuxiitu bi ilmihi lépp lu leerut fi ñoom ñu weddi ko bu dee xadis la ñu ne kon wérul yonent bi waxut ko loolu nag du doxin wi nga xam ne mooy doxin wu jub wi doxin wu jub bi mooy nit ki nangu ak gàtt àlliwam am na yoo xam ne bu ca gagee day nangu ne xam-xamam moo fa yeggul waaye bu fekkee lu leerut fi yow wala lu la jaaxal nga weddi boroom xam-xam yi tuumal leen waaye nag boroom xam-xam yooyu ngay weddee ko tuumaal lépp looy jëfandikoo ci sa diine ci ñoom la jóge xay na lala lala neex walla la rafet ci sam xel loolu daal moom danga leen koy nangul dëggalal leen ko la ñaaw ci sam xel nag wala mënoo koo dégg nga weddil leen ko tuumaal leen loolu nattukaay la bu kenn xamul lu mu doon ab nattukaay daa war a leer lépp loo teg mu yem nga ne alhamdulilah bu ëppee muy wala mu yées nga xam ne ëpp na wala yées na ndax xayru maxul xelum doomu aadama mu set mënta nangu jëmm joo xam ne moo lay ëndil xabaar saa bu la neexee nga ne lim wax lu dëgg la jàpp ci ak ñaari loxo di ko jëfee waaye bu la neexut nga ne kii ab nangamkat la ab soskat la weddi ko loolu musiba la lu mat a watndiku la moo tax jamono jii jamono la joo xam ne daal ci mboolem jamono yi nag la jaadu woon ñu gën a di tuumaal suñu bopp yenn yi buñ ko xamul même buñ ci dee taxawlu it ñu taxawlu ca te nangu suñu ñàkk xam te yokk gëstu incha allah gëstu ñu ñëw mën naa am lépp leer waaye bu fekkee luñ xamul rek weddi danañ dem ba suñu diine lañ ciy dese dana woyof lool wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain